jamono yi nga xam ne ñëpp dañuy yittewoo xarala yu bees yi jëm ci kër wala ci bureau ak yeneen digital store indeeti na ay xeetu matériel yu mucc ayib yi mujj génne ci jamono ji ay matériel électroménager informatique yu ngeen di faral di gis ci marque yu mag a mag yi su ngeen demee ci sunu showroom yi nekk Bourguiba wala Corniche Soumbédioune Colobane ak Point E lépp nga fa digital store lépp lu mu jaay ànd na garantie am na service après vente bu farlu buy dem fépp ci région yi ngir rek dab bànneexu client yi digital store lépp lu mu la jaay dafa la koy ba fan ko soxla li ci gën a neexati mooy lépp lu ngeen fa jënd lu tolloog ñaar fukki junni wala lu ko ëpp digital am na partenariat ak banque Microsen ak Cofina ngir yombal leen payoor bi ci 12 mois wala 24 mois moo xam ndax ordinateur ngeen jënd wala téléphone portable wala congélateur wala réfrigérateur wala climatisation centrale wala split su leen neexee itam ngeen def seen commande en ligne ci www.digitalistore.sn Digitalistore mi ngi ci réseaux sociaux yi Facebook Instagram LinkedIn ak Digital Store améliorez votre quotidien téléphone 33 823 77 87 TQG ànd ak Colorado dellusi na di leen présenter peinture yii di Touflex ak Coloflex di ay peinture d'étanchéité yu baax Touflex ak Coloflex doon na ay peinture yu gën ci terrasse buy senn di seet ndox ñu defare ko ci ay anam yu mucc ayib ñu saytu ko ci ay laboratoire ba mu wóor ci qualité ñu doo koy teg ci marché bi yow mi nga xamante ne da ngay tabax dale bu pare utiliser Coloflex su fekkee nga karale itam bu pare jëlal Touflex ndax ay peinture d'étanchéité la yu baax a baax yu wóor te garanti toogaay amatul bu leen di xaar ba nawet bi door ngeen doog di jóg peinture Coloflex Artoflex bu Colorado moo xam nga dër sa terrasse bu pare wala nga carrelé terrasse bu ñu faral di dox ci kawam la wala bu ñu tëbaka dal bu mu ci mënti doon bu ngeen ñëwee TQG dina ñu leen conseiller xelal leen ba seen terrasse dootul senn dal buy seeb ndox dara wóoru ci moo tax TQG ak Colorado ñu indi leen Touflex ak Coloflex de peintures d'étanchéité yu wóor wóor yooyu peinture disponible na nañu ci quincaillerie TQG yépp ak fépp ci Sénégal TQG ñu ngi cité Kër Damel extension rond point 26 Parcelles Assainies wala Mbour route nationale ci wetu croisement Saly TQG Touba 28 ci wetu grande mosquée Kër Massar am na TQG ci rond point Guy gi route de Jaxaay TQG Wakam ci wetu Brioche Dorée bi wala TQG 65 rue Nganandou Diouf TQG 84 rue Nganandou Diouf itam TQG notre force la qualité. mbokki jullit yi gannaaw bu ñu sante suñu subhanahu wa taala julli ba sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi ba xaq ñépp tey balu xaq ñépp yàlla nanu yàlla boole jéggal di fàttalante ak sunu bopp ñu gën a fab sunuy tànk teg ko ci taqwallah mooy ndigali suñu borom yi te bañ ko caa teggi ba faw saa bu nuy woo nun ñëpp ñu di ko wuy ji par kenn yàlla na nu fekk ñu doon ay dëgg dëgg yi jullit di fàttalante ak sunu bokk yi jullit yépp ne sunu borom subhanahu wa moo nu fi wàcce bi nu fi wàcce xamoon na ne danañu ëpp ñaar danañu ëpp ñett bañ demee ba tàmbalee doon mbooloo mbooloo jafe na loolu ñu bokk ñépp fuñ nangoo jëm moo tax mu daan yabal ay ndaw yoo xam ne dañuy ñëw di jubbanti nit ñi di leen yan di leen wan fa yoon wa nekk dëgg-dëgg fa yoon wa nekk nag mooy yoon woo xam ne ku ca jaar lu mu yàgg-yàgg danga nga seen ëpp dëkk te da ca àgg ka ca mujj nag di muhammad sallallahu alayhi wa sallam kenn ku ci ne ca ñi ko jiitu woon ku ci ne dafa am lum fànnoo di ca wëlbati nit ña waaye moom bi mu ñëwee lépp la boole bataaxalam bi lépp a ca nekk lu mu ca war a leeral leeral na ko lu mu ca war a diglu digle na ko lu mu ca war a tere tere na ko gannaawam it am nañu ko jël di dox doxin woowee doonte jéego yi mën naa wuute waaye képp ku ci tënku ci nii la ko yàlla digale woon yonent bi nii laa ko defee du juum mukk yàlla ñu dimbali muy mbir moo xam ne nag bu ca kenn xeeb boppam ku ci ne am na fu mu toll ci jottali la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ki nga xam ne ci kër la nekk yilif kër ga euh, nos boobee ma ngi ca loxoom mu war a jubbanti këram ak la wër këram tañ déggal ko di def ñuy gis muy wax ñuy dégg danaa si ñëw ci kanam waaye yitte ju lislaam jox ku ci nekk fu mu ko mën a yóbbu mu yóbbu ko fa àgg na ci ay aaya alxuraan yu bari yu ci wàcc waaye danañ ca jàpp jenn aaya ji wax ne lu wax bari bari lu jëf bari ba amu kenn ku gën a rafet ay wax amu ca ku gën a rafet jëf ki naan yàlla nee na yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam su gënee su xawee sori ci ñenn yi mën naa indi ci ñi ko gën a jege te doon wax loolee di def loolee fa man axsanu qawlan mimman daa ila allahi wa amila saalihan wa qaala innani min al kon ku ci nekk waru gar la wu ko dut wàcc li fii mi ngi tuddoo ab jullit ku mën a laabiire te junj naa ko léegi bu ci kenn xet boppam na fexe ba balaa yor kër mu xam lu néew néew ay farataam su boobaa su kër taxawee ci ay yoxoom ku mu mën a jubanti jubbanti la wax rek moo ko cay war ku def jaanam wàcc jaani koo ko wàcc ku defut jaanam wàcc na moom ndax loolu mooy war goram ku ko jëfandikoo nag dana am tex ak tey ak goog ëllëg ndax kenn du la yow moom ëllëg am xel mu dal lay dunde ba faatu dem aljanna yàlla nañ ci yàlla boole woo nit ñi gindi leen jëma leen ci pas-pas bu wér bopp lislaam bii muy jàngale jaaree ko ci njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw farata yi dara gënu koo rëy ci jaamu yàlla waaye dara ko dara gënu koo gaawit ci yoon wu jëm ci jege yàlla dëgg-dëgg ndax ki koy def saa su ne am xelam ci yàlla lay nekk moo taxoon yàlla yónenti yónni yónenti yépp yónent bi sallallahu alayhi wa sallam nag daana taxaw di ñaanal ñeg ko nar a taxawe ji ëllëg tàmbalee ko ca ñam daan yónni fi barab daana leen ñaanal naataange ju tàmbalee tey ji jëm ëllëg nadara allahu amran samia maqaalati wala umru an umru an fa ballagaha yal na yàlla di nëtëxal ba faw nëtëx di jox nit ki naataange goo xam ne saa boo ko gisee di laaj lu muy dunde te fekk xel mu dal moo ci ëpp doole ndax fa muy teg tànkam fépp leer na ko nañ waaye daana waxit ne ku tegtal nit ne lii mooy pas-pas bu wér lii mooy sunna sunanti bi lii mooy njàngaleem mag ñi bu fekkee Sénégal lañ nekk bu ko koo ko defee dana ca am ab yool moom ci digal gi ko ci tegtal gi mu ko tegtal yool bu toll ne bu ko wajee jëfee su ko wajee jëfe wut nag dana ca am yool bu mag a mag a mag a mag jaaram bàcc man dalla ala xayrin fa lahu mislu ajri faali e wooteel yàlla jaarale ko ci lislaam nag ci njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci njàngaleem mag ñi am na ñetti anam yu ko nit di jëfe mu tudd ko ba ca jiitu mooy ku juum jaar fu mu wër fa jaar boo ko ne ay yi ba mu geesu la dangay dem ba fa moom nga ne ko foo jëm mu wax la bu dul foofa nga leya ngeen teeg moom ba ne ko tee ngaa jaar nii am na ci nit ñoo xam ne kenn du leen jaar sàkk waaye saa boo bëggee ci ñoom dara am na foofu boo ko fay jaar rek am ca moom la nga bëgg mu am la mu bëgg moom itam ëllëg mooy li suñu borom di wax ci alquran ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana benn ñaareel ba it nit dana ko jaar ci moom ci boppam bu jàngee ba xam lam mën a xam lam da nga jàng ba xam lam war a xam di war a xam xam lépp jafe na waaye mën naa xam ba xam lam mën a xam fas ko yéene jëfe di ko jëfe fas ko di ko waxe di ko jëfe ba ku jaxasoog moom duutoo ko nangoo bàyyi muy jikko ju rafet melokaanoo jikko ju rafet ci pas-pas ak ci wax ak ci jëf aaye boobu daf koy yóbbaale wajaadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa alam ba ca mujj mooy ka ko sañ su fekkee sañ naa jël bant teg ko ca ñami jubbanti mu teg ko ci seen kaw te loolu moo war a mujj moom bi jiitu mooy leengante ak nit ñi ñaareel ba mooy mel melokaan woo xam ne ku ne bëgg na laa doon ku ca jug jëm nag dana jànkoonteeg jafe-jafe yu metti ndax kenn ci mag ñu yàggul ñii nee na woon baayam moo ko wax ne nit ku ñuul ku bokkut ak moom métier mu ne day taxawaal ku bokkut ak moom métier rek mu jàpp ko ab taxawaalukat waaye benn boroom xam-xam tënkoon na ko ci lu gàtt ndax ku dem ci alxuraan da ci fekk maa yuqaalu laka illa ma qad qiila lir rusuli min qabli doo dégg mukk lu yonent yi déggutoon ci ay kàddu danañ tënk danañ tudd sa tànk yu dëng danañ tudd sa reeju naqari danañ to tudd sa nopp yu féddéeral danañu topp sax leer joo am naan leelam bu woon ak leelam ci waaye faw ñu teg ay kaddu waaye ma yuqalu laka illa ma qad qila li rusul min qablik boroom xam-xam boobu nag ba mu koy leeral dafa ne saa boo bëggee dox diggante nit ñi ak wuy ji woote suñu boroom bu kay wootee di woote te loolu saa bu amatul rek pinc mi yàqu dangay jëfandikoo yàtt ba ca jiitu dangay fexe ba toppante ci wàllu kilifteef duutu am doom duutu teg way juróom fenn way jur woowu it su booba duutu teg way juróom fenn kilifa nu mu mën a toll lu la neex wax ko fu la neex jaar faak moom nee na soo bëggee daaneel penc mi penc mi duutu am njariñ fexeel ba nit ñi duutuñu am dund gamag ñi daan dund bu jëkk moo joxante cër moo ne sëñ bu mag waxoon nañu day dëkk ba ñuy wax teggin yoon wa ca jëm ku ca bëgg a àgg boo ca jaaree ni dox dénk naa la nga def ab yóbbal yatt yi danga ca tase da nga dab gone ndax yaa ko gën a gaaw ab dox su boobaa soo ko ëmbalee yërmande ji ko ay waajuram ëmbal doo xam nekk kersa gone ak yara di koom soo ko yónnee mu dem soo ko woyee mu ñëw soo ko ca dabee magit ndax yaa ko gën a gaaw ab dox yaa ko féete ndaw su boobaa soo ko joxee cër bi nga jox say waajur su boobaa it doo xam naqari deretu mag te su boobaa lu mag am mën na laa caa jox waaye soo ca su la ca ku tolloog yow ab dox dabee <clears throat> danga koy def ni sa bopp loo bëggul mu def la ko bëgg ko def ndax daanañu wax bu yàgg ne euh, saan wuy dem di dellu si doomu pasti kese doy na ca kon bu ñu fexee ba kilifteef amatul kenn joxatul cër kilifa penc maa ngi bëgg a yàqu nee na ñaareel ba dangay fexe ba wayjur dootu jël benn lenn lu muy warlu digganteem ak ñam jaboote wayjur la tudd waaye njaboot rek mën na gën yàqu kii ki war a jox cër moo ko moom kii kii ki ñu war a jox cër moo ko moom ki ñu war a jox cër bu ñu ci jëfandikoo la Sëriñ Saliou waxoon ne ngeen jiital gi ma yàlla jiital ci yéen su may dox man dama leen di gestu su ñu dee ñëw te sore ma nekk leen su ma leen gis ko dab leen loolu mooy wàllu kilifteef nee na soo bëggee jëlee ci soo bëggee yàq penc mi dëgg-dëgg da fexe ba kilifa dootu jël benn yan responsabilité la ko gone yi wax digganteem ak waaye nee na ba ci gën a yéeme da fexe ba. ñi yor xam-xam di ko joxe nit ñi xeeb leen xeeb xeeb laa wax de suñ ne ticcat yam ci moom ne ah kii diw rek la te loolu mi ngi tàmbali am suñ jamono saa buñ ne diw daa am xam-xam lool te nangu ko joxe ngir yàlla te suñ mag bi waxoon na ne ku nay ci xam-xamam ne patuus ak moom ba ëllëg yowmal qiyaama dana ko rëccu ndax am na fu nit ñi waroon a jëm foo xam ne bu ne woon ay ñu taxaw bu leen waxee danañ ko dégg fa kullu man bi ilmihi qad baxila fa innahu yub euh, qabla al mamati fa innahu qabla al mamati yubtala fa kullu man bi ilmihi qad baxila fa innahu qabla al mamati yubtala bi ma jëkk a wax ci yoon woowu yoonu te dëkk bi dañuy wax teggin tariqatu al adabi rahmatu sagir kal abi wal ummi wa tawqiru al kabir wa jaalu mislika ka nafsika sawa li waji xaaliqin ala arshi stawa xeeb boroom xam-xam yàpp ko lu la neex nga yàq ko ko nee na su boobaa loolu su tàmbalee am penc maa ngi bëgg a yàqu ndax àdduna wax la ak jëf jëf jooju kenn waru koo jëf te ënut ak xam-xam dañuy jàngale bu yàgg ne nit ki li muy jëf te tudde ko diine bu mu jéem a xam lam say am na xam-xam ko teg rek bu doon nelaw sax bu ñu ne ko foo ko teg na ne fii la wax la ma waxoon daaw su boobaa loolu xam-xam lañ koy jàpp ndax am na ku tënkoon xam-xam lu muy mel mooy nee na su waxee mu jëm penk jéem koo yëngal tuuti rek mu jëm sowu boo xam dana mën a nekkam de su mënee jëm sowu tuuti rek du xam-xam xalaat la waaye su fekkee penku dong la mën a jëm xam-xam a nga noonee koy jàpp la jàpp ku jàpp yow jàppal kon ñett a ngi noonu yu mat a bàyyi xel bu njëkk ba mooy ki war a joxe cër du du joxe cër saa bu sàmbalee am borom xam boobu nee na pénc maa ngi bëgg a yàqu waaye kiñ ki ñuy jox cër mu war a mu war a boote it su fekkee jëlatul benn responsabilité ci ñu war a boot penc maa ngi bëgg a yàqu waaye suñ demee ba boroom xam-xam saa bu waxee ñu joxoñ ko te kooka la muy wax xamu ci dara am na koo xam ne ab jàngalekat da doon seet ba xam fa ëlluwam toll ba xam néeg yi ñuy jàng ci daara yi néeg bu ñu ko cay yóbbu da koo tariloo alxuraan mi nga xam ne mooy jiitu ci xam-xamu ab jullit moo ci gën a jafe bokk yi ku mokkal ab ku mokkal kaamilu alxuraan bi lépp lu mu bëggatee mokkal mën na koo mokkal ndax téere bu toll bu ñuy mokkal amul wala boog su amee it boobee du weesoo soppiwaat dara ndax jamono da koy romb amul benn téere bu ñuy mokkal ba toll ne alxuraan boo xam ne ñëpp àndandoo koo ko laaj mu wax la ko muy benn koo ko da ko di ko laaj ba xam fu mu toll ci alxuraan bala mu ko seetal leneen. li yonent bi sallallahu alayhi wax ne bu ëllëgee julli la yàlla di njëkk seet ci jaamu nit ki su melee na mu war mel du du seet yu bari day bàyyi mu jàll day xam ne bu julli mu gën a mokkalees na ko da ca te nit ki di ko def lu mu néew yoon ci bis bi la cay des mënut ñëw par an da koo diglu mu feraloo ko alxuraan mu feral ko alxuraan mu capp cappeeku jàpp fii jàpp fee jàpp fee jàpp fu mu ko nee ay ca rek mu nekk mu nekk ca mu ne ko yow mi loolu waxati danaa ko gëm ndax nii ma ko xamee nan ko ko waxee su ëllëgee sooy wax lu ma xamut it dama koy gëm dama naan maa ko xamut waaye yowul li ngay wax dëgg la ndax keroog ngay wax mbir nag ku ci xamut nay dégloo rek gis ngeen laaj laaj moo gën a jafe sax tontu laaj yaa ayyuha allazina amanu la tasalu an ashyaa an ashyaa an ashyaa in tubda lakum tasukum wax nañ ne nit daa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam keroog yonent bi lu ma waay laaj danaa la tontu xanaa xamu leen ñu laaj la nga ne pat tontu la wa rubba qawlin jawaabuhu fi sukut wala fi sum waaja bëgg koo tiiñal ndax am na laaj yoo xam ne laaj nit ki laaju ko ngir xam kese laaj bari na ay virgo mu ne ko dama bëgg nga wax ma ginnaaw lu la waaj nga tontu mu ne ko maa ko wax mu ne ko fu ma bàyyi ko bi may ñëw fii ak nu mu tudd man mu ñëw ak bu ma jógee fii fu ma jëm ku ñeme des koo déy yontu bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ci mooy yàlla nga bàyyi ko ngay ñëw yàlla suturaal na ko waaye suturaal boppam tur wi ñu lay wax mën naa am nga tudd ko waaye sant bi moom du saw sant ndax ki ñu wax ne moo la jur juru la te boo jógee fii sawara rek nga mën a dem siiw na lool ay riwaayaat yu bari waaye nee nañ xiin aw daa jóge foofa aw xiin sàqi mu le seelu ci ab miir ni ba daana ci kawam ñii ne garaba daana ci kawam waaye daal soriwut te yàlla nu yàlla musal ci kàddu gi mu yonent mu mujj wax kon lii sàmm pénc mi buñ ci taxawut bu jógee ci penc mi ci kër la jëm bu jógee ci kër gi ba digg ci ëtt bi day yàq kër gi néeg par néeg su yàqee ëtt bi yàq néeg yi néeg par néeg nag lu fa nit ñee defati defatuñ fa dara te su boobaa la ñu ne woon la yàlla waxoon ci suñu maam te te nit ñépp yanu ko ba léegi si inni jaalu fi l ardi xalifatan qaalu atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima mu ne leen inni alam ma la taalamu ki ma fa yóbbu wóolu nag xam naa ci moom lu ngeen xamul kon boog la daloon ñooñee rikk bu mu ñu dal nag ko ne fexe ba néeg bi ba ñu yàqoo ci loxoom ëtt bi ba bu asee ci ëtt bi nag ba ñu yàqoo ci ëtt bi tam nekk fa waaye bu mu yàqoo mukk ca pénc ma bay law di law lawtal di law di law ñeneen yàlla nañu daal defal dégg ak topp te mu musal seytaane ki pakkam ma fàttali ne euh, woo nit ñi yóbbu leen ci pas-pas bu wér jàngal leen diine ci jaar leen ci ay téere benn wala nga jëf jëfe ko ñu gis am na ñooñu lu ñu gis nga def ko dañ koy gëm lu mot a bàyyi xel la lu ñu def nga lu ñu gis nga jëf ko rek naan ko def xamuñ jaar na yoon wala xamut xamuñ jaar na yoon diw daal la ñuy topp kooku nag moo ci ëpp bu yem waaye ba ca mujj mooy koo wax wax muute boo ko sañalee bant bi ma doon wax naan ñu teg ko ay want soo ko mënut teg ay want nee ko nañ tàggoo fii ndax du ma ànd nit ci nii ya lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin ajabani ànd ak Colorado dellusi na di leen présenter peinture yii di Touflex ak Coloflex di ay peinture d'étanchéité yu baax Touflex ak Coloflex doon na ay peinture yu gën ci terrasse buy senn di seet ndox ñu defare ko ci ay anam yu mucc ayib ñu saytu ko ci ay laboratoire ba mu wóor ci qualité ñu doo koy teg ci marché bi yow mi nga xamante ne da ngay tabax dale bu pare utiliser Coloflex su fekkee nga karale itam bu pare jëlal Touflex ndax ay peinture d'étanchéité la yu baax a baax yu wóor te garanti toogaay amatul bu leen di xaar ba nawet bi door ngeen dog di jóg peinture Coloflex Atoflex bu Colorado moo xam nga dër sa terrasse bu pare wala nga carrelé terrasse bu ñu faral di dox ci kawam la wala bu ñu tëbaka dal bu mu ci mënti doon bu ngeen ñëwee TQG dina ñu leen conseiller xelal leen ba seen terrasse dootul senn dal buy seeb ndox dara wóoru ci moo tax TQG ak Colorado ñu indi leen Touflex ak Coloflex des peintures d'étanchéité yu wóoru wóor yooyu peinture disponible na nañu ci quincaillerie TQG yépp ak fépp ci Sénégal TQG ñu ngi cité Kër Damel extension rond point 26 Parcelles Assainies wala Mbour route nationale ci wetu croisement Saly TQG Touba 28 ci wetu grande mosquée Kër Massar am na TQG ci rond point Guy gi route de Jaxaay TQG Wakam ci wetu Brioche Dorée bi wala TQG 65 rue Nganandou Diouf TQG 84 rue Nganandou Diouf itam TQG notre force la qualité ci jamono yi nga xam ne ñëpp dañuy yittewoo xarala yu bees yi jëm ci kër wala ci bureau ak yeneen digital store indeeti na ay xeetu matériel yu mucc ayib yi mujj génne ci jamono ji ay matériel électroménager informatique yu ngeen di faral di gis ci marque yu mag a mag yi su ngeen demee ci sunu showroom yi nekk Bourguiba wala Corniche Soumbédioune Colobane ak Point E lépp nga fa digital lépp lu mu jaay ànd na garantie am na service après vente bu farlu buy dem fépp ci région yi ngir rek dab bànneexu client yi digital lépp lu mu la jaay dafa la koy livré ba fan ko soxla li ci gën a ti mooy lépp lu ngeen fa jënd lu tolloog ñaar fukki junni wala lu ko ëpp digital am na partenariat ak banque Microsen ak Cofina ngir yombal leen employeur bi ci 12 mois wala 24 mois moo xam ndax ordinateur ngeen jënd wala téléphone portable wala congélateur wala réfrigérateur wala climatisation centrale wala split su leen neexee itam ngeen def seen commande en ligne ci www.digitalistore.sn Digitalistore mi ngi ci réseaux sociaux yi Facebook Instagram LinkedIn ak Digitalistore Améliorez votre quotidien. Téléphone 33 823 77 87. boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés ñu bind abone bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën a ne ci àdduna bi ngir ngeen mën am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo